te mooy sunu fukkeelu darsu ak ñaar ba tey ñi ngi ci sabab yi nga xamante ni si dafay dafay yàq njàpp mu ne wa min asbaab bokk na ci sabab yi ba tey almas laal way lay jëm na ci moom ajar way lay ci moom ajar jungi na bi xawli ci waxam ne way jib dana war alwudu u njàpp aydan ba tey min ma ci laal zakara mu ne bokk na ci sabab yi yi nga xamante ni si dafay yàq njàpp yi nga xamante ni dafay waral njàpp mooy laal zakara laal zakara nag moom bu ko nit ki defee rek dafay yàq njàpp bu fekkee ne cër bi nga xamante ni moom la laalee zakara bi cër boobu cër bi yëg la moo tax mu ne almutasil ba di jokk almuraad liñ ci namm zakaru nafsi mooy zakara boppam mooy mu laal zakara boo xam ne zakara boppam la su boobaa su ko laalee ci cër boo xam ne cër bi yëg la dafa yàq njàpp amma nag bu laalee zakarab jàmbur moom bala balaa mi mën a yàq njàpp mooy mu jubli ca bànneex wala mu am ca bànneex mu ne so waawun aji yemoo la mosoo laal na ko xamdan ci tay aw sax wan wala njumte moo xam zakara boobu mu laal ci tay la laal wala ci njumte bu fekkee dafa tay daal laal zakaram wala mu laal ko ci njumte su boobaa loolu yëpp dafay dafay yàq li nga xamante ni si moom mooy njàppam mu ne li annama la yushtarat ni nga ni nga xamee duñ sartaal fii ci moom alhamdu tey la yushtarat duñ sartaal fii ci moom lasatun bànneex wala xasdu haari caageen jublu ko ca mu ne lépp loo xamante ni diñ ca sartaal tey ak ñàkk tey yàppal ne diñ ca sartaal mu am ca bànneex wala mu jublu ca li nga xamante ni si moom mooy bànneex kon zakara moom ni ko nit ki laale rek dafay yàq njàpp bu fekkee cër ba mu ko boobu cër bi yëg la moo xam moo tay laal ko wala teyu ko wala ba muy laal zakkar bi da cee jublu bànneex wala jublu ci bànneex nu ca munti di demee rek dafay yàq njàpp walaw kaane dara nekk na almaasu aji laal ja cheyxan di mag dira mag moom moo laal zakara boppam jàppal dafay yàq njàpp wala aw xiniinen wala tuuña tuuña nag suñ ko waxee mooy koo xam ne zakara borom zakara bu gàtt la ba nga xamante nii day am jafe-jafe sëy nga xamante ni wàllum sëy moom du koman man kooku moom mooy tuña kooku su laaloon sakaraam sax dafay yàq njàpp mais laakin waaye bi chartil buloog ci sartan mu jot baax kon xale bu laalee sakaraam du yàq njàpp kon kay laal sakaraam yàq njàpp dafay fekk mu nekk mag waa demit xa ili ak ñàkk digale ah, moom it du yàq njàpp maanaam bu fekkee la nga xamante ni ab digale la bu fatt moom bu ko laalee moom loolu du yàq njàpp amaa nag bu fekkee lu oyof la moo tax mu ne illaa lu mooy la nga xam ne xafu oyof na jiddan lool bu fekkee ne dafa oyof oyof goo xam ne ah, jéggi na doyoo nga xamante ni si parce que bu ko laalee rek mën nañoo wax ne laal na sàkkara ba su boobaa loolu dafay dafay yàq njàpp amaa bu digee boo xamante ni bu fatt la kooku moom su ko laalee du yàq li nga xamante ni si moom man jàppam wa bi charte ah, bu dee digal boo xam digal bu oyof lool la kooku moom bu laalee dafa yàq njàppam wa bi charte li saali zakkar yi dañuy sartaal nag mu nekk zakkar boo xam ne zakkar bu jokk la zakkar boo xam ne zakkar bu jokk la amma zakkar bi ñu ko daggoon mu dali fële su boobaa mu dem laal ko loolu du yàq njàppam ni ngi noonu zakkar bi ñu ko daggoon ba mu des tuuti ba nga xam ma ngay lang su ko laalee loolu dafa yàq njàppam parce que lu tax ba léegi zakkar bu moom mu ngi jokk kon zakar ba nga xam moom lay laal du yàq njàppam mooy mu nekk zakar boo xam ne dafa dagg lépp dagg na mu daal di koy laal boobu du yàq njàppam wala mu laal sakaraay jàmbur kooku moom du yàq lu mooy mu juble ca bànneex wala mu am ca bànneex comme ni ko jàngale woon waaw kaw nul ak nekk ak laal bi baatinil kaf fi ci biir tenq yi mu neel jël laal zakara ci biir tenq loolu moom mooy yàq njàpp wala ci wàllu tenq yi aw aw asxaabihi wala ci biir baaraam yi la zakari tamit ci biir baaraam dafay yàqu njàpp jan biha wala ci wàllu tenq yi wala ci wàllu baaraam yi kon zakara bu ko nit ki laalee ci biir baaraamam wala ci wetu baaraam wala ci biir tenq wala ci wetu tenq yi jàppal ne dafay yàq njàpp mu ne wa doole alazi li xam ne fi nekk na te saasu njëkk xayri yi comme moom la rek mu ne cër yi nga xamante ni cër yi dooleeku jàppal ne moo yeneen cër yi la rek ci wàllum yëg dire ña ngay yëgee ni yeneen cër yi dégg jàppal su laalee yàq na njàpp kon jàppal ne cër bi nga xamante ni moom mooy la zakara ba tax njàppale di yàqu dafay fekk mu nekk cër boo xam ne cër bi yëg la wuteeg laal ci yaram ndax laal ci moom takkuñ ko ci li nga xamante ni moom mooy cër bi yëg wala bu yëgul laal ci yaram moom bu ci borom julli ba bànneex wala mu am ci bànneex rek su boobaa njàppale yàqu na wala fonog yooyu laal zakar moom lañ cee saataal mooy na nekk cër boo xam ne cër bi yëg la waaye la misaawi di la yemawul xayroo bu moom xalaa maa xam ne zaxara feeñ na lanaa ñeel nañ lanaa ñeel ñu mi ges mi ahlil mazhabi ci dogum ñooñ ngir mi ci liy yàq njàppal nguunu ngaana al mushkil bu lënt bi ci la zakkaraam wa naqada wudo il shaki ci yàq njàpp aji sikk fi xadis yi ci toj mu ne dire cër bi sax cër boobu ci dolleeku di de yëgul sax li nga xamante ni si moom la yeneen cër di yëg ci wàllum yëg-yëg dire yëgu ko jàppal dafa yàqu njàpp lu tax fan lañ teg seen wax jooju ñoo njir mi fi ñu teg seen wax jooju mu ne nguunu ngaana moom bu laalee li nga xamante ni si moom mooy zakaraam dafa yàq njàpp te nguunu ngaana zakaraam wuute naag yeneen càkkare yi maanaam xawraay nguuru ngaana wuute naag yeneen xawra yi moo tax munu ngaa ne bu laalee xawraam dafa yàq njàpp te ki nga xamante ni moom it dafay sikk si toj moom it ah, dañuy jàpp rek ne njàppam yàqu na moo tax ki nga xamante ni si moom cër bi nga xamante ni cër bu dooleeku la jëre yëgul li yeneen cër di yëgee sax dañuy jàpp ne dafa yàq njàpp mu ne dañuy jàpp ne dafa yàq njàpp kon rawatina cër boo xam ne kon diñ ci saataal yeneen cër yi diñ ci cër bu dolleeku bi yëg maanaam comme ni nga xamante ni noonu la cëri cosaan yi di yëgee mu ne wama adri xamuñ min aynan axasoo fan lañ jëlee istiraat musawaat ci saa tabiyamoo ak zaidu cër bu dooleeku li fi instance yi ci yëg wa ak soppandiku ma maama zakar na ànd ak li nga xam tudd nañ ko maa wujudul ihtiyaat ci warag ci warug leerlu fi jaanibil xibaadaat ci wàllug jaamu yàlla bi jaanibil xibaadaati ci wàllug jaamu yàlla mu ne borom soxla moom mooy critiquer ñi nga xamante ni si ñoom wax ne cër bu dooleeku moom balaa mi mën a yàq jàpp faaw mu yëg comme ni nga xamante ni si noonu la yeneen cër di yégee moom nag dafay critiquer wax jooju mu ne loolu moom gisu ko ndax ndax gisu ko mooy nguunu ngaanta moom nguunu ngaana bu laalee li nga xamante ni moom mooy awraam dafay yàq njàpp bilaay xawraan dafa yàq njàpp te awraam nekkut xawra boo xam ne cosaan la maanaam dafa sos rek ginnaaw ga te ki nga xamante ni si mooy dafay sikki saaka ci njàppam yàqu na wala kooku dañuy jàpp ne njàppam yàqu na kon nee na kon ki nga xamante ni si cër la boo xam ne cër bu dooleeku la moom lu mu ca déggee jëdee yëgu sax da yeneen cër yi dégg comme que moo ngi yëg rek da koy boole ci li nga xamante ni si moom moo yàq njàpp comme nee na ñi nga xamante ni si dañuy wax ne cër bu dooleeku jële yëgul yeneen cër yi di yëg yàqu njàpp nee ñooñu seen wax jooju xamul fan lañ ko jëlee mu ne wamaa fi ujuhóor yi waaye la nekk ci ujuhóor yi min anal asli yi naka ci rub cosaan laa yuxtabar xalam fii ci moom ixsaasu njëg binaa tabax nañ ko fi xawlim ci seen wax na masa nekk laal bi yeddil ci loxo salaahu bay aj làggi ah, laa yen xidu da yàq njàpp mu ne sa ujuhóor yi nag dafa wax ne cër cërub cosaan moo xam dafay yëg wala yowul jàppal ne dafay yàq njàpp loolu joxër yi jàpp ne cërëb cosaan moom moo xam dafay yëg wala yëgul dafa yàq njàpp muy ànd ak ñi nga xam ne seen wax dañoo wax ne cër bu làggi moom du yàq li nga xamante ni si moom ma njàpp kon wax joxër yi noo koy déggee mooy cër bu làggi sax bu laalee dafa yàq dafa yàq njàpp cër bu làggi nag mooy cër boo xam ne dem naa dem ba nga xam ne amatul yëg-yëg ci li nga xamante ni si moom lay moom lay laal moom lay laal mu ne waaye dan ba tey sara leeral na ko shaasi saa zaati li bi àndoon ko moom laa budda mu ne ñàkk mu neen istaas ci yeeg fi asaabil asliyati yi cëri cosaan yi mu ne saasi dafa wax ne ah cër cërib cosaan moom balaa mi mën a yàq njàpp faaw mu nekk cër boo xam ne cër bi yëg la kon moom ànd na ak ucóor yi benn côté waaye nag am na côté boo xam ne ànd cee moom léegi cër bi cosaan bu fekkee nekk na cër boo xam ne yëgul kooku moom du yàq njàpp waaye soxor yi dafa wax ne cër bi cosaan yëg yëpp dafay dafay yàq li nga xamante moom njàpp bu fekkee da ko laalee dafa ko laalee zakaraam waaye saasir yi dafa wax ne cër bi cosaan balaa mi mën a yàq njàpp bu dee nit ki dafa laal zakaraam balaa mi mën a yàq njàpp faa mu nekk cër faa mu nekk cër boo xam ne dafay yëg amma bu yëgu nag su boobaa du yàq njàpp mu ne waaye dan tey istiraatum seen ak sarta sartal nañ fi zaidin ci cëri doole ko yooyu musaawaatu mu yem ak li xëy ñel yu dun moom fil ixsaas ci yëg shaahidu sidqin seed ak dëggal ala istiraatil ixsaas yi ci sartab ci sartab cëri cosaan yi mu ne saa li dafa jàpp ne cër bu dee cër cosaan la moom balaa mi mën yàq jàpp daal faaw mu nekk cër boo xam ne dafa yëg amma bu nekkee cër boo xamante ni moom jàppal ne foofu moom du yàq njàpp kon ba léegi boo xoolee dafa dafay teggi waxi saasili jooyu di waxi ucoor yi jooyu nga xam ne dafay wax ne cër cosaan moom balaa moom dafa yàq njàpp mu nu mu demee moo xam yëg na wala yëgul kon d'accord naag ucoor ne cër cosaan moom fekkee dafa yëg da yàq njàpp waaye nag bu fekkee yëgul yàq li nga xamante ni si moom mooy yàq li nga xamante ni moom mooy njàpp jàppal ne nag seeni wax am na xaaj ñoom borom xam-xam yi bu fekkee ne cërub cosaan la kooku am na ñaari wax am na nañu wax ne cërub cosaan dafay yàq njàpp maanaam cërub cosaan bu dee ah, day yëg dafay yàq njàpp ujóor yi dafa wax ne day moo xam dafay yëg ak yëgul yëpp jàppal ne dafay yàq njàpp waaye dafa wax ne bu fekkee ne cër bi yëg la te cërub cosaan la da yàq njàpp waaye bu fekkee yëgul yàq njàpp amaa cër boo xam ne si nii cër bu sos la cër boo xam ne cër bu dooleeku la moom moom bu fekkee ne dafay yëg comme ni nga xamante ni si noonu la yeneen cër yi di yëgee kooku mu amul wutee ñëpp d'accord nañ ci ne dafa yàq njàpp amaana bu fekkee yëgeewul comme ni nga xamante ni noonu la yeneen cër di yëgee moom cër bu dooleeku boobu su boobaa foofu nag moom moo am wute am ngi ne dafa yàq njàpp am ngi ne yàqul li nga xamante ni si moom moo njàpp mu ne nag lay dalilu ki nit ki bu laalee zakaraam mu yàq njàppam mooy xadis bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ko isa masa bu laalee ahadukum kenn si yéen zakaro zakaraam isa zakaro ah, zakaraam fal yatawadda na jëm jàpp ji mu ne xadis bi nga xamante ni si moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax loolu la ñuy tegtaloo loolu mooy sunu dalil ne nit ki bu laalee li nga xamante ni moom mooy zakaraam rek njàppam yàqu na kon loolu moo nekkoon sunu darsu tey in uridu lil islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh